sama soxna dafa toll woon diggante di waaj am doom bi bi biiram bi metti ma dem si policier bi nga xamante ni moom moo fi monté ma expliqué ko ma ne ko sama sama sama sama jabar dafa dafa toll woon diggante mu war a dem hôpital mu ne ma xaaral ma ma wootee commissariat ñoom ñu wootee hôpital léegi mu wootee commissariat ñu ne ko ñu ko xaaral xaaral xaar tuuti ñu wootee hôpital léegi woote hôpital ñu xaar ñu ñu xaar xaar déggatuñ dara man dima ba ma ne ko kéere biiram lay métti fi toll nii te war naa dem hôpital fi mu toll nii mu woote waat mu woote waat commissariat ñu ne ko dañuy woo médecin bi jotaguñu ko léegi mu toogaatee soñaat ko mu woote waat ñu ne ko woo nañu woo nañu médecin bi woo na woo bi léegi bi ñu woowee médecin bi ñoo kan la ndax kiñ ne dafa am corona mu ne ko déedéet mu ne ko nañ nañu nañu nañu ut ut ut ut oto yóbbu ko yóbbu ko hôpital mais may may may wax ne loolu nan nan la fa mën a nekk kër goo xamante nii nee nañ dafa am ku fa ku fa amee corona ñu am ñu am malade bu jëm bu jëm hôpital ñu leen di ñu leen di utloo pour mu pour mu daal di ko yóbbu loolu mooy lan man yaakaar naa ne bu demee noona waa dispensaire war a indi seen ambulance jël si ko bu fekkee ñoom mënuñoo ñëw ñu yebal wa waa waa sapeur xanaa ñu jël si ko fekkee ni li ñuy wax si corona bi ne am na man maa jàpp ne nan la a nekkee mais ñoo woo clando garage mu ñëw mu ñëw yóbbu hôpital defu fa 15 minutes am doom kon xam ngeen ne kon naroon naa amee doom kon si kër gi bu bët bu bët setee clando boobu waat mu daal ko jëlee hôpital. indiwaat ko si si indiwaat ko si kër gi kon ñoom dama yaakaar ne ñoom ñun dañ ñoo jël exposé ñu fii tardeel suñuy ittee ak suñuy liggéey yëpp